ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun kenn ku góor ku ñu faat xaritam moo ko faat ginnaaw bërëb ñaari junneeg ñeenti téeméer yi mu ko yoraloon du douze mille francs ñu ne faatu yi nga xam ne mooy am ñii di meurtre loolu leen ak am na gu bees ku am foofa ca diwaan bu tiwaawoon pël ginnaaw xaleel bu góor bi la di Pape mbay moom nekkoon dawalkatub saret moom nag lañ daal di poignardé maanaam nañ koo jam mu faatu ki ko def di ab xaritam di woy si xaadim ñoom ñaar ñooñu nag jéye jëm nga amoon ki altina foofa ca Tiwaawoon pël li leen boole woon nag ñoom ñaar ñooñu buñ sukkandikoo ci les secours mi ñëw yaatal xabaar bi mooy ñoom ñaar ñooñu dañ doon jënd ak jaayante ginnaaw bi nga xam ne kilo di xaadim dafa waroon a jaay kilo di e, Pape mbay benn marchandise ñu xaale ba toll si ñaari junneeg ñeent téeméer douze mille francs ginnaaw ba loolu amee nag kile di papp mbay joxanteeg waa ji rendez da ko woo ay yoon mujjul ko jot mujj gi nag kii di xaadim jox ko rendez-vous ca benn euh, école bu nekkee foofu ca Tiwaawoon Pël ngir ñu daal di fa dajee mu jox ko lii di marchandise am ginnaaw bi ñu fa dajee nag ndeke kile di xaadim moom waajal na boppam si lañ daal di commencé di xeex si la ko daal di jëm paaka bi mu ko jëmee paaka nag mu mujj euh, daanu génne deret ju bëree bëri si lañ ko daal di jël ngir rawale ko sa hôpital kile di Pape mbay mujj ñàkk bakkanam kile di xaadim nag ba mu defee jiyee jooje dafa daal di daw waaye ñi nga xam ne ñooy woy takk der yi mujj nañ koo teg loxo moom mi la di xaadim mi def jiyee jooje ginnaaw bi nga xamante ni jam na kile di Pape mbay nekkoon dawalkatu saret ginnaaw bërëb ñaari ju nekk ñeent téeméer bu leen boole woon ba kilo di Pape mbay mujj ñàkk ba kanam gannaaw ba mu pertaat deret ju baree bari